Assane ñu dooree ko ci yow rek ak li nga xam ne moom mooy li ñu doon waxtaanee fii démb euh, waaye ji nee na euh, daal président Macky Sall wërta dem troisième mandat wax ñu bari daan ci wax yi boppam la yow mi sax yaa ko jiite wax ji. Mm-hmm. Euh, noo gisee waa parti socialiste seen génn bi ñu def est-ce que du mën naa tas seen parti ginnaaw ba Wilane waxee ñu weddi ko. non mënu koo tas ndax ndax day loo xamante ni ñëpp xam nañ ko man kay daanaka li ma la waxoon démb rek. laa ci wax mais baa ngi nii. ñe bañ génnee daanaka dañoo bind ne leen bàyyi Assane Mesere wax dëgg la. loolu lañ bind. waaw ah waaw. moom lañ bind. waaw damaa taxaf man la Wilane li mu wax waxi boppam la nga ne ma preuve man la waxi boppam la fi wax mais concerné wut parti bi. ok ñu xëy ñoom ñu bindal la. loolu mais gën neex nag boo ko wax di ko argumenté teg ko. mais mais wax kay di liggéey lu gën a neex amut. nga taxaw wax public. public ñu ñëw tontu awaat si li nga waxoon même li nga waxoon ñu bind loolu. publier loolu kay wax dëgg yàlla leer na. ok fii nee naa la plateau bi jàkkaarloo kii ak yow Sénégalais yi di ma xool mën na maa wax lu metti waaye du ma wax lu du dëgg. ci nga dëkk nag de. <laughs> munu gaay <laughs> kon yóbbu ma waar musoo dox si YouTube. wala nga dox TikTok ba gis ñu yóbbu ma waar musoo koo gis. yow barki dem rek dem nga fi waar de. mais may dox gis a woo. <laughs> oh doo ko gis doo gis ñu yóbbu la waar lu ma la wax rek boo xoolee da nga gis loolu. kon nag Wilane. est-ce que loolu mënut a tas parti. du bokk si parti daa tee nga wax wax wax sa bëgg-bëgg. am na droit wax li muy wax bu ñëwee si parti bi nag li parti bi dogal. moom mais ñun ñu njëkkante di weddi mel ni euh, président Macky Sall tey mu waa ji wax weddi wuñ dañ ne ko kii bi muy wax waxut si parti bi am na droit nag wax waxi boppam loolu kay c'est normal ndax bu ñu waxee nii dinaan waa parti socialiste waa parti ñu leen hee kii si parti bi la bokk waaye nag am na droit wax waxi boppam parti bi néewu ko bul wax sa bul sa xalaat. d'accord ah am na si droit waxi boppam rek la ne waxi boppam. d' accord ji noo jàngatee parti socialiste mi génn weddi Wilane dafa mel ni daw nañ seen responsabilité wala dégagé nañ ko. waa ñenn ci parti bi. Mhm. Euh, ah, kon ñenn génn yore communication bi kay ñi yore kii. ñenn ñi euh, Wilane ay porte parole bi. mooy mhm. kii ko woon démb bul nañu ki yore kii bi Wilane yore mooy porte parole lu parti socialiste. est-ce que xamoon na ko sax waaw kan bañ nga nga def attention ci li nga xam ne donc li Wilane. Wilane ñaka tontu. Euh, moo leen gën a kawe ca parti ba ndombal tànk ba mu ca nekk ñee nekkuñu ñu xam nga li gën a garaaw ci àddina euh, dal na fi euh, Adama Adama Adama Adama Fall Adama Fall ah, waaw Adama Fall APR waaw waaw mm-hmm. waa ji wax benn wax ne Mimi Touré ak président Adama Fall daal bëgg a taxaw di wax ne Mimi ture musul wax ak président président musul woo Mimi mm-hmm. après waa ji ne ko yow Adama. Mm-hmm. yow fa ñuy dogalee mbir yi newoo fa. waaw waa ji doo xamul Adama Fall moom toogut ak président. nekkut ak président. musta gisante ak président bañ na ko ba dafa wutoon ay photo di tappale di créer. <laughs> gisee ma ba ñu bari foog ñu loolu dëgg la mais bu ñu toogee ci plateau dañuy mel ni ñoo président ñoo ndékkeendoo si yooyu aussi tamit day am ci li nga xam ne Adama nag aay na de non tey man fa tey su wax loolu dama naan dëgg la ah, mu mel ni moom président ñoo toog te moo ko monté waaw moo ko monté xam nga yooyu mooy yëfi tappale gaa yi façon tappale gu dinañ ko def pour wéeru ci nit pour ne jege naa nit ki gëmloo ko nit ñi mais ñoom loo xam ne dara du ci dëgg ba noppi léegi bu ñu bëggee taxaw di wax moo tax bi ko waa ji waxee loolu nekkoo nekkoo ci mbir yi mooy nekkoo ci mbir yi Adama Fall li muy faraatu ci buntu kii bi rek lay loolu lii wilaan wax. Mm. il faut mu am ay booy yu génn ñoom it daal taxaw ne ñun ñoo waa parti socialiste nii parce que ci biir parti socialiste am na ñoo xam ne mii ñi ngi mos nekk nañ ci post yu baax ak yooyu seeni booy dinañ génn comprendre. jéem mm-hmm. a yëngal ak def kii beeg yooyu mais lii wilaan wax. Mm. je sais que ni am na ñu bari ñu mu partagé loolu ci biir parti bi. te ci mm-hmm. kanam tuuti di nga xam ni am na ñu bari ñoo xam ne bii ñoo bokk gis-gis ci loolu. Mm-hmm. parce que te waxoon nga ko nee na nee nga ñu bari dinañ génn. non ñeneen danañ wax. Hmm. donc léegi lii lenn la rek. fi mu toll nii euh, jiite na kii bi léegi booy yi nga xam ne ñoom ñooy wax noonu. dinañ hmm. leen identifier ay booy koo ci seet. <laughs> dañu nekk ay booy ay Serigne Mbaye Thiam ak ay booy kii la ñuy nekk rek ñoom ñooy génn parce que seen waaye ngi gundaan daat fi mu toll nii. Hmm. te waxagul dara buñ ko bu bu yàqal. ay wax bu ñu yàqal la quoi. parti moom est-ce que amati na sax waaw ah, non parti socialiste am na. un pour cent mais en tout cas li nga xamante ni bii moom la Wilane wax moom. Mm-hmm. je am na ñu bari ñoo xam ne partagé na kook ñoom. Mm-hmm. waaw te ci kanam tuuti. ñeneen jàpp parti mën na faa jaar yëngu. Ah non parti ba mu yëngoo yàgg na. ah waaw parti socialiste parti socialiste nii <laughs> ñu baat lim mi fa la nekkoon de Khalifa Sall fa la nekkoon ay Sall Sall mooy fa la nekkoon <laughs> da ngay lim ay nit ñu bari fa la nekkoon fa la nekkoon. fa la nekkoon fa ba léegi. Bamba Fall Male. <laughs> waaw moom nee na fa dee de. foofu mu ne loolu la nee na fa fa lay dee. Ah. fa lay dee. Hmm, hmm. waaw déggoo ca vidéo nee na fa dee. Hmm. te nee dina falaat président Macky Sall. ah oui waaw wax na loolu. wax na ko de. d'accord na fexe jéem a faluwaat. beneen yoon moom. d'accord man nag am na ñu ma ci yërëm nag am na man am na ci ñoo xam ne ñoo xam ne bu réew mi bu fi dëgg doxee. man gis naa ci nguuru président Sall ñoo xam ni mën nañoo réew mi dina leen jariñoo mais am na ñoo xam ne alaaji naa leen trop. waaw ah. waaw bis bu ñu amee li senegal yi bëgg ci wàllu doxalin jub ak ak ak ak dëggu ci réew mi. tey tey bu ñu génnoon bu ñu demee fii waa Pastef waa gis naa ci ñu gis naa ci ñu am solo am na sax tey tey bu ñu génnoon dem système a leen dëngloo rek. Mhm. Eh, am na ñoo xam ni dënguñu. Mhm. mën nañoo leen a mën nga leen. mën nañ leen dëng saa su ne. defaraat leen am na ñoo xam ne xam nga dafa am ci ay nit ñoo xam ne nit ñi sooy bu nii lañ. Mhm. am na nit ñoo xam ni. ku ñu nekkal. mel ni waaw amatuñ ngëm-ngëm yow mel nañ yow yaa ngi dégg c'est parce que yow lañ nekkal tey bu subaa bu ñu nekkee Assane mais muy sàcc ñu doon ab sàcc d'accord ginnaaw suba ñu ne son bu mu jub mais lañ nekkal ñu jubaat waa dëgg la ah, ñoom daal kàkkatar la ñoom li waxam ci di garab gi ñu jox ñu roog moom waxi récupéré la rek la ma waxee comme ça tey jii ñoom opposition bi ku bàyyee APR boo ñëwee duggit na garaawut ñun jub nañ da nga jub loolu la waaye loolu lañ war a bàyyi ku jóge si APR boo ñëwee dugg. mais loolu dafa am ci ay nit. a dugg am na xamante ne bi boo tegee système mu jub. Hmm. ñu ne kooc boo tegee système mu dëng ñu gën laa dëng. Eh, am na ñoo xam dañuy nekk ci béréb naan dañuy jaay dëng dëng lu kenn gënu baax dëng man <laughs> loolu am na wala amul. Ah. <laughs> am na waaw. daal en tout cas ñooy daal nañ bàyyi daal nañ bàyyi daal. yaa ko yóbbu ci kii ay ja